seen néegri kii moo doon partagé data jigéen ñi di wane ay lëf yu kooyu ngóor mu génnee ko génne kooyu duudu génne kooyu ñëpp ak data yëpp moo weer yi jigéen ñi Sénégal tey nag moom la ñu weer moom moo si ci live bi directement wane ay kooyam parce que moom dañ ko jiñ ne góor jigéen nga waaye ki ko jiñ vidéo góor jigéen bi ba tey génnewul lu leer dafa flotté kanam gi te ku ko xam-xam ne daawul folooti nit du suturaal nit te bëggul kenn di ko suturaal Adamo ku ko xam-xam ne ku yor vidéo woowum ba koo dugal wala partager vidéo Adamo day leer nañ nga génnee kanam gi génnee physique beeg yépp ñu xam ne kii Adamo la doo ko ràññee doo ko nëbbu doo ko ful ndax moom yàgg naa wax ne bëggul ku koy suturaal nee na sax boo ko mënta dugal nga jox ko ko moom mu dugal ko mat mu katt ndayam ci seen porno bi ko fépp na doon lu leer ndax Adamo bu sa la dem kii nag moom mooy kaa bi tey incha dinañ fi génnee lu leer a leer a leer su ma message ne ma Malick nee na dalay envoyé vidéo bu leer bi nga katt ndeyam ci live bi tey Adamo Boss Day Negri bind leen ko Instagram foofu la kaa bi wi Sénégal dinaa commencé xaar Malick mu ñëw jox ma vidéo yi ma daqaar ndeyam bu fekkee dëgg la wax ji fee gars yi am na ku ma message comme gars yi salaamaaleykum gars yi am na kaa kii mooy Adamo Boss Day Negri kii moo doon partagé data jigéen ñi di wane ay lëf yu kooyu ngóor mu ak data yépp moo weer ndeyi jigéen ñi Sénégal tey nag moom la weer moom moo simmeeku ci live bi directement wane ay kooyam parce que moom dañ ko jiñ ne góor jigéen ga waaye ki ko jiñ vidéo góor jigéen bi ba tey génneewul lu leer dafa flotté kanam gi te kat aadama ku ko xam-xam ne daawul flotté nit du suturaal nit te bëggul kenn di ko suturaal Adamo ku ko xam-xam ne ku yor vidéo ba koo dugal wala partager vidéo Adamo day leer nañ nga génnee kanam gi génnee physique beeg yépp ñu xam ne ki Adamo la doo ko ràññee doo ko nëbbu doo ko fu ndax moom yàgg naa wax ne bëggul ku koy suturaal nee na sax boo ko mënta dugal nga jox ko moom mu dugal ko mat mu katt ndayam ci seen porno bi dugal ko fépp na doon lu leer ndax Adamo bu sa dugal lu la dem kii nag moom mooy kaa bi tey incha allahu rabbi dinañ a leer a leer